mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw te di leen siyaara bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax ci teewaay bi nga xam ne mbokk taalibe yi teew nañ ko fii ci bis bi nga xam ne dañ ci am yëg-yëgu sant ci soxna Jaara Buso di siyaara bu baax a baax. sëñ Koso mi nga xam ne moo fi teew ànd ak caméra man ñu ngi ko siyaara bu baax a baax incha allah. su mu mel ni tey da nga woote bisu cant soxna jaara euh, nga war a ganale sa xarit sax doomu ndey wala sa doomu baay sëñ Xaadim Gueye euh, lan la def ci yow tey waaw sëñ Xaadim moom mooy lépp ci man sëñ Xaadim moom mooy lépp ci man mooy koo xam ne lépp lu mu nekk bu doon woote bu woote woon naanum sàngara sax dinaa ko teewee yàlla xam na ko moom lépp la ci man ma ànd moom ci liggéey bi soxna jaara bii nga xam ne li lépp moom moo koy def ñu ànd ci moom di ci gunge di ko ci jàppale ngir wax joo xam ne sëñ Moussa Bassirou Mbacké da ko waxoon wax ko ne ko soxna jaara ñi ko liggéeyal moo leen tànnal boppam moom nag sëñ bi wax ko ne ko yow soxna si daa daa boole ci ñim tànn di ko liggéey di la liggéeyal ñu am yëg-yëgum nag ànd moom tànn kooku ngir soxna si tànnaale no rek moo tax moo war ñu ànd moom di jooyal suñ suñ suñ yéene di ko jëm di ko jëm ne soppa yi namoon nañ loo xam ne andi leen nga leen ko fii tey muy xasida yi ndax am na lu fi jaaroon xëy na sëñ Xaadim Gueye soppa yi namoon nañ ko loolu lay wax soppa yi lay ndeysaan moom sëñ moom day day koo xam ne ñëpp ñëpp ñëpp a ko namoon ñëpp a namoon xasida yi demoon na ba nit ñi seen xar kanam yi day day day sax xaw a mel ne lu xiin ndax maanaam namuguñ namu xasida yi waaye euh, lépp ay ko lay doon lii lu fi jaaroon la loo xam ne rek euh, tawat yi ñu doon wax lu doon leeral diggante sëñ Touba ak ñeneen ñi la lu doon xàjjale sëñ Touba ak ñeneen ñi wan ni ñu ne sëñ Touba yemut ak kenn loolu rek moo taxoon suñu borom andi ko yónni ko fi bi bi mission matee mu dem waaw loolu la rek am na ñoo xam ne tuddee nga leen bis bi ñu bàyyi la nga sant leen gërëm ak soxna yi nga xam ne jàpp nañ leen ci bis bi ak ñi nga xam ne ñëpp jàpp ah loolu nag moom moo ma gën a ñor nag ci bis bi nag ndax euh, xam nga tàgg boo gis am na jàppal diw Ah, bis bi nag biñ ko jàppee dañ koo tuddee soxna Momy Kébé mu baax mi nga xam ne day jëmm joo xam ne. ah waaw. Uh-huh. wax nga lépp day jëmm joo xam ne léppam Serigne Saliou la waaye nag. muy muy koo xëy ne ku ku am fit la ku ñeme koo xam ne. waxtu wu nekk mi ngi jël ay teraanga di ko defal doomu aadama yi te yàlla tax ndax ñi mboolem ñi muy defal teraanga ñëpp xamu leen jaxasoo wut ak ñoom kon bu koy def yàlla rek moo tax mu koy def ñu am yëg-yëgum nag bis ñu tuddee ko ko ngir joyal sunu cant ci moom ngir teraanga ji muy def ci koñu jàkkee njuga gépp te ñëpp teg ci seen bët ñoo ngi koy seeral yàlla suñu borom ak sëñ Tuubaa mi ñu suñu borom booleel waaw ñu dara jaale ko nag sëñ Abdoulaye mii dëkk ak ñun ci koñ bi di loxom di di sunu sëriñ ñu di ko xoolee sunu sunu wasila sëriñ Modou Bakhoum ndax sëñ Mor Faasa dañoo boole woon ak sëñ Modou Badar Diop waa Fanay waa Daaru Fanay wax ne waa Daaru baaxum ku ci xëy na nga na nga dox ba seen néegi daara jóg doog a dëpp loolu nag di boole boo xam ne loolu lañ jàpp ci ñoom moo tax ñu am yëg-yëgu dara jaale ko bis bi ak sama rakk ju baax ñuy wax sëriñ Mass Samba Diouf ca Ndakaaru moom it muy ku baax ci man ku rafet ab taxawaay ci man ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm sunu cant daal buñ doon tàmbalee nii di wax ba suba duñ mën a taxaw ndax ah, xol bu sedd ak xol bu fees ak cant gu rëy gu gu sori ci suñu xol waaw ñoo ngi koy seeral ñëpp hmm? waaw. waaye incha allah yow nag maa ngi sant na lool waaw sëñ Xaadim mi ngi ñëw léegi ñëwee rek tàmbali liggéey bi incha allah maa ngi sant jàng di teew